foo tollu buubal foo tollu tuubal foo tollu laabal mbaa nga tilim neen wataane yàlla mbaa gaayi yàlla ak tudd yàlla dana tegu neen tudd yu bon ya ak gaa yu bon ya ak jëf yu bon ya dana ësig neen ku fiy defug neen mbaa muy waxug neen yow bul waxug neen te bul defug neen diw gaa ngi laalaw diw gaa ngi niinal te ku ci niinul asal dangay neen ku jàpp wii way te amee ak way dardil di am way ku weddi lii neen bul xoole ak neen bul geeso ak neen te bul doxug neen nangay moyug neen fayal sa bor yi tuubal sa moy yi far sa ay wii ndax nga soriñ neen ku xame ay bor daldi xame lor te xame ay lor moo gën a bon neen te bu la kenn seen mukkati ngay béen yow mbaate ngay téen looloo di ak neen réewande baaxul xamadi baaxul te fakku baaxul yàlla na bàyyi neen ba defa def nit bay defaru nit bay fegalu nit bor ak lor ak neen addina day wéy sab dund day wéy yowit dangay wéy bàyyil yoxoy neen kuy def yoxoy neen du am lu dul neen ngir ku jiwu neen du gis lu may neen tuubal yoxey neen tuubal waxey neen tuubal jëfi neen ngir bëggul ak neen ku tuubulug neen du am lu dul neen du yor lu dul neen te kenn bëggul neen sëriñ bi yaa ngi nun dong yaa ngi nun soppe yaa ngi fegal nu ak neen yaa mën a fekk neen yaa bàyyi ak neen yaa sori ak neen soril nu ak neen doleeti nuy may fegal nu ay moy fegal nu ay ay faw ak i neen samay giréy na sa tab giréy na sa gëm giréy na yow doo nit ak neen yaa weesu jeexal yaa weesu xaajal kenn du la tàllal deloo yoxoy neen ku ne na feesal del te jompal tul te giijal ba sori ak neen te noo ngi tàllal ngir bëgg a feesal boole nu feesal daxal nu ak neen yow yàlla yaa moom ku nekk yaa moom lu nekk yaa moom fu nekk yaa moom jëf ak ka koy jëf ak xel ma koy jëf ak cër ya koy jëf yii yépp yaa moom loo sante kenn loo yoole kenn loo tagge kenn yow lépp yaa moom ku la defal lëf boo joxulit lëf kenn du la wax lëf ngir lépp yaa moom ku defulit lëf nga jox ko nag lëf deesu la wax lëf nde lépp yaa moom yaa sàkk yaa moom yaa bind yaa moom yaa boole kay moom moom ak la muy moom doylul nu wëllis ku nekk wëllis lu nekk wëllis fu nekk yaa moom yow yàlla may nu sëriñ bi may nu yonen bi may nu sa bopp yaa moom sa jaamu may nu sa cant may nu saw tagg may nu man nga te yaa moom xiiwal gi may nu barke bi may nu wërsëg bi may nu nuy topp yaa moom sëriñ bi jàppal way wi le sellal te fab ko nag jël mu ngoogu yaa moom wanaa sa ndimmal bëgg sa ndimmal sàkku sa ndimmal seenu sa ndimmal bëgguma ndimmal lu dul sa ndimmal lu dul sa ndimmal loola du ndimmal dimbali ngay gaay ba yoo yelay gaay di dimbalay gaay may noote ndimmal yaa amee ndimmal yaa bare ndimmal doo jeele ndimmal doli nu ndimmal may nu loxooti te geesu nooti te wallu nooti ànd ak ndimmal te jublu nooti far yokku nooti labiire nooti dikke nu ndimmal xëy noo ki ndimmal dégal sunuy xol dundal sunuy xol waare nu ndimmal wonoo ki ndimmal yóbboonu ndimmal ku amee ndimmal day maye ndimmal xol yépp nay nooy kër yépp nay nooy nuy sant bay jooy li lee di ndimmal bu lef karante sunu diggante nanuy gisante di gis sa ndimmal lu yàgg-yàgg na nga nu bëgg nu di la bëgg di am sa ndimmal may nu sa ndimmal nu may la ndimmal ngay sunu ndimmal nu di sa ndimmal ma sant laati te tagg laati ngir may nga maati bégal nga maati yokk nga maati dolli nga maati yërëm nga maati sarax nga maati yow yaa di kenn koo xam ni kenn déggu ko fenn gisu ko fenn donu la kenn kenn du la donn yàlla du donn deesu ko donn sedd nga ab xol seral nga yit xol te dal nga am xel dalal nga yit xel dakul nga nu way faw akuk may ak képp kuy may jox nga nu ndimmal kuréere am koom yow daala di am koom xam laa di am koom am laa di am koom ku la xamul moom réere na am koom ku la amul moom ñàkk na am koom te ku la toppul xelam ma guddul ku gudd am xel day topp sangam képp ku am gëm te yaa di sangam ku nangu boppam ku gàntu boppam mucc nga raw nga rafet nga set nga jiitu nga faru nga lu kenn dul far kenn du fug raas ndare ko lay raas yal na nu lay raas yal na nu lay far ngir yàlla ban ba ak yonenam ba ak kuréelam ba ak ku ñu may gëm nanga nu may ndam te may xomar ndam may sunu ñoñ ndam te may ñoñam ndam may nu ëllëg ndam te may nu tey ndam dàqal nu mboolem loraki lëndam mayal sunuy ndey yërmande juy wéy te boole ceeg pay guy wéy gu dul yam ku dul sunuy baay nañee sunuy baay te bu sunuy baay ñee kenn fa ñuy jëm mayal sëriñ pir caaj jeney kër ak ngeen ji waa kër ñuy dab ba neexam te may fayit nag ma jaxateeg jag gu yéemu ak mbég ci gépp wàllam may nu ci ñuy ñaar fukki yëf ak yaar yu dayatig waar yow ngeen ji yaaram tey gudul dañ yewen gudul dañ ngërëm lu dul dañ ak kere kiy ñam ak jàmm ku wér ak sori luy lor faw ak sori bor ak lu ñu naacam ak guddu aw fan ak mucc ci fen defal nu lii nun te wis nu loo am omar na barkeel may ma barkeel nu bokk barkeel jiitu sunuy kam may nun nu mat baay mbooleem sunuy baay naa gën samay baay mu gëni baayam ku nekk baayam nayam fi waxam mbaa sax bu baayam yegsi fi waxam ku ne nafar gën baayam ba aw fan te sut ko aw fan ëpp ko xam-xam ëpp ko wërsëg fapp akuk jag gën koo ragal nag yàlla boroomam gën koo bari jëf gën koo rafet jëf ëpp ko jaajëf ëpp ko it gëm kuy jàngi wiy way na am ndam ak way te fu mu jëm nay tiimi moroomam sëriñ bi fam nu yëkkati teg nu ca kaw te fal nu may nu xam ak am dikke nu ndimbal lu mag akuk pal tefar nu dàkkul lu nuy teree dem am dana tee dem ñàkk di tee dem bu ñu nu tee dem fagal nu accam dolli nu kattan te dolli nu man koo dolli kattan mu noti noonam koo dolli ak man mu dolli kung man ku dolli kung man far mani maasam nangeen yeesal peq te yeesal gaa yi nu nekkal te dolli nuy may nangeen feesal te dal di feesal kër yeeki fonkal yu dul jigéen mooy wutal nu yóbbal boo xam ni yombul te may nu ak pal aku wér ak way may nu nu dëggal am gaa yu dëggal yu gën a dëggal lii def ko tey tey fiqal sunuy fan te fara sunu bon fangal nu ak bon faw akub jay fegal nu bakkaar yow la nu yaakaar ngir yaa nu doy kaar ba yow la nuy roy solil nu bekkoor te may nu ay wuur yu defa def góor te ngóor a géy wéy fabal sunu mujj baaxal te jóg faj aajo yi tey faj rag yi lii rëy fajal nu xol yi te faj yaram yi sottil nu may yi banu ni ëskay dogal nu ay tool yu jige ren lool yu nangu yaa lool nangul ni wii way gerte na nangu dugum na nangu lépp na nangu te bu mu gis ay fegal nu am ruur faw ak waxi buur ak waxi waa góor ak ceebu muy dey bastul na jëm kaw te teel a jëm kaw tey jëm a jëm kaw ba nu dugal mbay ba fab sunuy mbay jox la ba jël way ku la joxul mbay doo gis ndamam rëy nun la nga aajo nay sunu aajo te bu nu aajo lenn lu lay moy faral sunuy moy te soppi koy may balu nu daa moy dellu di ay may fegal nu ak moy ak képp kuy moy may nga nu ak may gu réeréy tey seytaane jóg na gaayam ya jóg na yu bon ya jóg na tegi nu nun wey ku yàlla réeral kenn du ko baaxal ku yàlla baaxal kenn du ko réeral ku ñu joxug jub day mujj far jub ku ñu xañug jub day mujj dëngal sëriñ du koy def murit du koy def yàllaa di koy def def na ba sottal lii xam ko tey ñaan xam ko du tee ñaan yàlla defum ñaan digle ko ñaanal ñaanal mu may la ba noppi wis la tefar musal la ci la nga tànnul loo bëgg sàkkul ngir yàlla ñàkkul dara te bëggul lu dul ku tàllal am na lu nekk mën na lu nekk jox na ku nekk loo bëgg seenul yàlla xañaanul kenn te siisul kenn teeyul ku ñàkk ñaanul du tëji buntam du tere buntam ku ñëw fi buntam mooy la tàbbil moo jox ña baaxoon jégal ña tuuboon xamal ña réeroon sédd ña téewul jox na ndaw yiw te jox magu yiw jox ñépp aw yiw jëfam ji ñaawul bu dox di ñaawal njorta ka ñaawal ay jëf ku ñaawal moo woolu baaxul yàlla du fab lor di ko tegul lor da koy fegal lor di ko ko teggil jortal lu taaru te def lu taaru ku def lu taaru jortu ko giijal képp ko am lëf yàllaa ko jox lëf lu jeele ay yëf jëm ca te sellal yal na nu yàlla may may gu sell ak jëf ju sell ju dara sikkul yàllaa bari may ngir bàjjo bee may yeneen yamoo may ñépp te jéelul may na ku nekk lépp lu nekk dese lu nekk du dee di jeexal jox na ku nekk dig na ku nekk dogal ku nekk am koddu ak njël bii buur a mat buur moo mag it nguur moo mat a def buur moo mat a wéetal boo ko defee buur mu def la nag buur nga def larub buur bu mag jaamul yal na defuk baax ci nun gurul jeex te may nu xar baax yu kenn foogul yal na nu baaxal fab xol yi sellal fab jëf yi tandul fab fan yi loqal yal na nu may fan wu guddakuk man musal mu cig bon ak jëfi ngistal yal na nu may ak mucc te may nug musle te may nug cant gu yombul yal na nu dàkkul mboolem lu jékkul faw ak lu neexul ci bët akub xol yàlla bu hay ne fenn fu nuy ne yàlla bu nuy ne fi nit ñu muccul yàlla na nu mucc nekk fu mucc nekk ak ñu mucc yiw bokk nuy dal mbooleem ku ñuy ñee yàlla na nuy ñee nitam ña it ñee nit ñi nu àndal yàlla na nu bég jag ñi ne fi nun bég faw te jag nag sunuy xelit dal yàlla na yàlla yi dolli sunuy may faw ak ay xëy dollil sunuy xel yal na nu nekk ci mbég mu nekk ba tàbbi rekk firdaw si jombul yàlla lu muy def moo xam na muy def ba def ko ngir lëf tawu ko lottul moo sàkk xar baax moo sàkk it baax ku mu xaral baax du neex a nekkal dana la tee def ba noppi tey def la mu la tee def te du ko yàqal te boo ko dee roy ca loola sag rey jaadu na bul roy lu yoona léeful te boo ko dee roy ca loola sag rey jaadu na bul roy lu yoona léeful ku roy ku am gar ca gar ga def mbir te jëlee nag lor ca roy ga yeewul foo gis ku man ndox day tàbbi cim ndox tey aaye am ndox gaaye ko miinul digal nañu suwaay lëf tere ko gaay te may nañu suwaay baña mu dendal lu ñépp bokkul matul la tëb dal te dëgg teeyal bañu ni naanal te rikk jàppul bañu ni sukkal ndab yaa ngi lekkal ba regg santal bul tëb wutig dex ku tëb wutig dex te mënulum ndox gis lu mu santul àddina baaxul ndaw lu mu wéetal def ko lu baaxul bul génn nëbbul nëbbul ba xëy mat def kenn kuy not ku dee satul not ñu fab la feeñal bul jéem a feeñal sa bopp feeñal sa bopp baaxul bul digle diglul bul jiitu toppal daw jiitu baaxul ko yàlla jiital na nga ko jiital bul doyee doylul bul yeeteewul murit du jàngal sëriñ ba tuubal loo mënatee xam jaayal la ngay xam jëndi la muy xam yar baa ngi jàppal loo mënatee xam jaayal la ngay xam jëndi la muy xam tonoo ngi jaayal ku jaayulu xam faw akuk xam jënd xam ak am du yegg xellul xamay teree xam xamay teree xam jàppuk xam ak xam jigul ku yëggul bu gaaw a doylu gaawal te duylu ku gaaw a doylu ci wiiw du woomal bul gaawetee wéy ngir gaawe ak wéy ak mooy la teg wéy matu la gaawal nit sax bu dee wéy war na balaa wéy xam ci lu muy wéy bul def ku téeyul na ngay soriñ mooy ak luy niru mooy tey muslu ak mooy fawal lu leerul ku tuubulug mooy bàyyiwulug mooy fu mu damit day réer ak réeral yàlla na nuy leer ak a mayeeg leer te génn ci réer génn ci réeral sëriñ bi ay yu bari na ragg yaram yi bari na faatu bakkan yi bari na fegal nu yi yett bu wér ragg ki ndog yu jógati ak yépp ay wu jógati ak gépp dee gu jógati na teggi faw sunu kër luy lor lu jóg nee ko na mooy bépp murit fawute mooy bépp jullit fawute mooy baabakar ak kër baabakar man dénk naa la sama mbir fawute denc la bu wér ko sax ci daa ndigal bu wér te du carax leen naka jar yor mu fegal nu jëpp lor teeg ëllëg ak yori bor feesal mu feesal sunu kër faw ak i cant ak i jur na nga ma def ku gudd fan ku gën a gudd ñépp fan te kat defal ma sama fan wépp ni laylatul xadar may nu yaram wu wér a wér ak jëf yiw ju wér a wér ak sa ngërëm lu wér a wér loo xam ni deesatu ko far teeg ëllëg bu nu fu jooy sunu njabootit bu ñu jooy fegal nu luy waral jooy saxal nu ci cant gu bir teeg ëllëg nun bu nu ñee kenn te ñépp nanu ñee te bu nu dañ di ku ñu ñee ba dugg nunu firdawsi far lu yàgg-yàgg bu nu gis lu dul mbég te bu nu mus lu dul lu neex a neex a mus te bu nu jóg ci lan war bu sama xel mi jóg ci yow bu ma dajit lëf ndere yow na sama xel dëkk ci yow samay cërit boole ko yor doylul ma wallis ku la mooy tey ak ëllëg te jox ma may gu réy gu ëpp gépp may fapp te gën ko nag bu wér gisuma man lu jar taxaw seen ma it lu jara bew man li ma gis moo jara daw te li ma seen a ëpp a jëm muy te kii soxnaa ki kër la dee fi ngéejoo ak i jur te xam ni yii waaju ko yor bu sàgganee yéesi kamam ku soobu man di yoru tiis te yanu say réew diis far boole aw tiis ak ko diis bu bariwul kattan du dem pake bu fees ak marsandiis te na ci digg dex ko tiis waaju ko yor matu la siis akaa ñaane la mu am ngir jàllagul jàllee gulit te muccagul muslee gulit xamul la koy xala dalit yow bu ko ñee far ko yërëm fexee la am yow sa boroom moo gën fexee am sa moroom te lépp lëf ludul boroom moroom a góogale na xam soxna du lëf ludul moroom moroom a lay xañ sa boroom defal li lay may sa boroom am buur a gën amub dagam jëmal a jëm ci sa boroom boo ca jëmee mu jox la moom boppam te jox la say moroom nga far ko am ami mayam ku boole yàllaa ki mayam te boole buur a ki dagam te boole sanga ki lam yile te laq ngërëmam ku am boroomam am lu ne ku ko amul ñàkk lu ne jëmal ci yàlla jëm gu ne mbir maa ngi nii na nga ko xam xamal ni yàllaa mat a jëm ku jëm ci moom a mat a jëm jëmal ci yàlla mbaa nga jëm ci ko la biir ni ca la jëm yow abdu xaadir laxasul te awaaw yoonu ndigal tey wattu pakk bu la fel ngir pakk yee gën a bari jigéen a nguute pakk la aw fasa nguute pakk la waajaaye nguute pakk la te pakk yi daana lore seytaane mii daana fele te bakkanit daana fele banneex itam daana fele addina it daana ware te léegi yow nag yaa ngi nii yàlla mi ngay yiwuta ngi nii te li mu lay santa ngi nii say noona ngi di la tere say noona ngi wër la fu ne di la fexe def nag lu ne boo farluwul farlu gu ne doo mën a yegg fu sori moo tax mën naa la tubayul te faxa fax wuti ndigal ku faxa fax wuti ndigal du merte dee su ko mere marit ndigal moori sa ngeem bu kawee tabbi sa ngeem bu kawul génn sa ngeem nag di werantee ka bëre ndigal ku koy génn di ruur lëf mbaata lëf dal di ko ruur mooy ruur a kay gis lu ko ruur tey loru daala ko re tey loru daala ka lore ndigal ku koy génn di luur lëf mbaata lëf dal di ko ruur mooy ruur a kay gis lu ko ruur tey loru daala ka lore tabbil te bul génn ti yow mukk te bul geesoo ti yow mukk te bul feqoo ti yow dëgg defal gor su gore as gor bu jàppee du bàyyi day rafetal te du tey te yedd képp gu tey tey sant nag lu naqari wéyal te bul geesu gannaaw xamal ni laf niwul gannaaw lu dul lay jëme gannaaw te loola ay law bari abdu fabal sa dénk bi te dénk naa la dénk bi cërik abdu dénk bi dee ko xalam ak a tari madun ma dénk la yawit dénk bu yéemu bu rafet te nanga ko jàpp bu rafet kon yàlla may la lu rafet fabal sa it te jëme kaw te fab sa lépp jëme kaw ku bëgg kaw day wuti kaw sa it te ji watul mu rat it te ju rat musiba la ndax bu ratee yàlla bala ku sopp yàlla it bala lii lu ko jara xaw ma ko kat bis boo xëyee te man dara ak sa bakkan defal dara xamal ni xëy defoo dara du may murit la muy mébét ku xëy di jekki bu ko roy ku xëy di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy ku xëy di def yii nag du nit njagam dangay roy na nga roy waaja nga xam ni dafa xëy soobu lefum ndigal di wéy te geesuwul taxawalit kii moo di nit ku mata roy ku roy ku dul kii mata rey lefum ndigal waaju ko mooy rendi na boppam te yëgut la dee fi wut moo di ndigal la dee fi bëgg di ndigal koo xam ni kii mooy na ndigal asal du gis la dee fi wut dabal ndigal ku ko fabul déef la fab ku ko yorul déef la yor ku ko fatul foo mën a jëm déef la fat yal na nu yàlla boole fat sëriñ bi it boole nu fat yonen bi it boole nu fat nu dëkk nag fi seeni wet te dëkk nag fi seeni xol ñu dëkk nag fi sunu xol nuy topp nag seeni ndigal ba xam xam ngërëm lu mat madu ne sa dénk a ngi nii madu ne sa yëf a ngi nii madu ne sa pay a ngi nii jàppal te seeni lu rafet li dale tey jàpp ëllëg defal nu koy cant ci mbég sunu tey ëllëg na jag te bu ci lëf jagadi kët donte damaa xamoon a am ba am lu nit mësula am kon it du tee ma ni la am te naa la doy lewuma kët donte damaa jagoon a jag bëgg na jag ku mas a jag kon it du tee mbàkki ma jóg te jëm ci yow di la mébét donte damaa réyoon a rëy bëgg na rëy ku mas a rëy du tee ma wut ci yow lu rëy te xam ni yaa ma gën a mat addina donte maa ko moom xamal ni yaanu boole moom man la ma moom ak la nga moom def ko ni sab tànk ak sa bët lu nekk nag yàllaa ko moom faf na la jébbal lam moom faf na di yow nga faf di moom seenub diggante ga rafet dangaa defoon sunu moroom ba mujj ngay sunu boroom dinu xamal sunu boroom yàlla nga yow muy niru nit niru nga yàlla aw defiin niru nga nit ñi aw doxiin déefu la xam déefu la miin déefu la yar déefu la jot waxtu jot nga laxasu fas nanu yéenee laxasu topp ci yow di wakkasu bañ a taxaw bañ a tawat yow rekk yaa mat a faral yow rekk yaa jara bégal yow rekk yaa mat a jëfal mat ngab sëriñ matub xarit bégal nga ñiy dund ak ñiy dee yaa jar di wut rekk ba dee ña la amul ñoo gën a dee te gën a ñàkk wërsëgit yow yaa di ràcc bu ñu sif ku nekk yaa ko gën a saf nun ñépp yaa waral nu saf ba ku nu gis ni nu tawit negaaña dee rëccoo lu bon may nu nu rëccoo na lu bon ba dal di daw léegi lu bon ci sunu dundu gile nun negaaña dee bëgge lu baax may nu nu bëgge na lu baax ba dal di def léegi lu baax te ba lu dul lay tax a gën donte dañoo del si file farlu gañuy ame file may ma ko léegi man file te def ma waaju gudd fan bu ñu ñëwoon léegi file melawa ñuy ame file melal ma léegi noonale musal ma ciw meloo bon nanga ma may ma xam njariñ na gaaña dee xame njariñ te sax ci def lu am njariñ te dëddu mooy faw ak fen nanga nu may nu xam njariñ na gaaña dee xame njariñ te sax ci wut lu def lu am njariñ te dëddu mooy faw ak fen lu dee fi rëccu foofale nanu ko rëccu nun file jëkk ba nuy dem foofale ndax bu nu fay dem di xaram sutura may nu ko file faw te may nu ko fale te fal nu fii fal nu fale pal gu rafet yow mi ko man xamal nu xam-xam bu rafet te may nu am am bu rafet ak jëf ju mag gi ju rafet ak ngërëm ak njariñ la gën faale nu may nu jàmmi diir ak biti def nu waayu buur rokkas nu it ba dunu buur mu kakkadam mu neb gosen sakkal nu ay daara yu wóor yu fees ak ay murit yu wóor te def nu it làmmiñ te def nu it ku bari muur te gudd fan gudde ni ron sakkal nu ay daara yu wóor yu fees ak ay murit yu wóor te def na it ku bari muur te gudd fan gudde ni ron nun noo ngi lay sant bu wóor saramu sa cant bu wóor ak njël lu sax lu doy lu wóor ba du nu jëgg ka wéran te may nu àjjana ci biir ak biti may nu wér gu wóor nu làq àjjana bu wóor ci sunu dund gi la nun ka lépp nekk ci loxoom yàlla ni yëkkat ak loxoom la nekk lépp ci loxoom teg ci sunuy yoxonu moom yàlla na yëkkat ngërëmam ak ngërëmul ku mu gërëm ak lépp lëf lu mu gërëm jox nu ko nuy sant ka moom yàlla na nu cas wéru yaram ak fanu gudd ki dërëm yi lew yu dul jeex xoram jox noo ki jëf yu gëni koom sutura yàlla na ko ni ciix tey ëllëg ni nu ko foox nu sant faw ni ko ciix jële ca yëf yu wooma woom yàlla na ni yërmande jënguus fi saamu daw dikk ni xuus ni ci sunu yoxo ya xuus nu nga ko boole ñépp tiim yàlla na ni cas bu teel a teel tey ak ëllëg lépp nga neel jox nu ko jox gu teel a teel gu fes gu deeful manamiim képp ku ñuy yéem a kañee daaral ña ko yéem a kañee yàlla nañu ni yéem a kañee ba fa kanam sunu boroom yàlla na ni yàgg nag ci kaw suuf ak ndam ak jàmm ku yiw ba mujj nit ñépp ci kaw suufa ku yiw ñàkk moroom yàlla na nu baax a baax a baax taami xar baax ak yu baax ba ëppi xar baax ak lu baax ña set ci iblis ak soloom yàlla na nu mucc muccile raw ay wu nekk rawale gis jàmm jot ca jotale set le setal ku nekk luum yàlla na nu jub ñu santunu ay wépp wépp tegginu yiw wépp wépp wut sinu yët ni ñam ak gétt ki buum yàlla nañu fab la sedd xol lépp ak la xel mu nekk dal lépp ak la fit wu nekk dal jox nu tey ak ëllëg nu moom yàlla na nu am kattan gu nuy sant de bu wér bamba ki nuy fegali wopp ak deeke ay te di nu may jàmm ku yiw yàlla na nu am kattan gu nuy sant de bu wér bamba ki nuy fegali wopp ak deeke ay te di nu may jàmm ku yiw fu nekk wopp xew na fa fu nekk it dee xew na fa fu nekk it ay xew na fa te xam ni fii jàmm fi xew sutura am na fi bu baax teraanga am na fi bu baax teg mucc am na fi bu baax nun war noo sant ca kaw te ku ñu may mu sant ko jàpp na may ga tënk ko ku jàpp ra nag tënk ko du mënatee fexe ba raw ak may dafay daw du taxaw bépp barab bu ko gis mu ñëw te kenn santu ko mu daw fa ñu ko sant lay taxaw musiba yi dee fi dogal ak ñàkk sant ko waral lar bu ñu may bu ko yëgul ñu nangu mooy may ga far ko caw musiba yi dee fi dogal ak ñàkk sant ko waral lar bu ñu may bu ko yëgul ñu nangu may ga far ko caw ku bëgg ay wi mooy sa kër tuubal bu wér sant bu wér ku an kon ay wi mooy la mooy sa kër yeewule yow mi lay nelaw ku bëgg ay wi mooy sa kër tuubal bu wér sant bu wér kon ay wi mooy la mooy sa kër yeewule yow mi lay nelaw sawara buy tàkk di ñëw bayal la wër fa nga ne yow kon waxtu buy tàkk ba ñëw fala nga bay teggi la yow sawara buy tàkk di ñëw ku xoddiwul xanaa di daw ab dof la ngir du mën a daw barawte den dañ ñax mu wër lay musle léegi tuubi mooy bu wér a wér te santi may ku tuubi mooy te santi may ay mooy ko far may ñu ko aw man rëccu naa mooy yi ma mooy te sant may yi ñu ma may yàlla nañu far mooy yi nu mooy yépp te soppi leen yiw yàlla na nuy sant ka tuub tey bañ a def lun mënta tuub ku bàyyi mooy tey dëkke tuub gën ñépp ëpp leen yiw jongama juy fóota ka buub te fu mu toll ni groupe di sukk kay sant ka tuub kenn du toll ni moomu yiw sëriñ du nax am muritam murit du nax ab sëriñam sëriñ dafay jaayi yëfam ku andi lëf mu jox ko lëf ku andiwul nag lenn lëf te bëgg nag mu jox ko lëf kookale nag moo di ko def ngir day fexee naxee ka këf te yàlla kenn du ko nax waayam itam déefu ko nax koy naxe it boppam la nax yàlla du dof waayam du dof ku ko joxul lëf ndare wax doo gis mu jox la ndare wax ku ko joxi jëf a ki wax mu jox la ay wax a ki jëf loo andi yóbbu ak njëgam loo andiwul ba fa njëgam loo bëgg a yóbbu ak njëgam te andiwoo njëgg suruf tànk ngi nii njëggaa ngi nii junnee ngi nii njëggaa ngi nii yow mii di jënd yaa ngi nii teyal te def loo war a def bul lore yow te bul loru bul ware it te bul waru defala def nit ku yaru ku yaru moo safe te saf loo saytu ak njëgam fabal loo saytuwul njëgam bàyyil te wuti njëg dëgg defal li le ma wax moo mat a def na dee fi dikke fi bitig fekk fa ngeen ji tere tang nga naa ko jox ma sa bitig bile te yow joxoo këlëf maanu la maanu yor sa xel sàcc gënul dofit gënul sàcca di koy fab loo yëgul dafa di koy daanee këfëf ku jóg ni day siyaara ji na yëg ni képp day dugg ji te képp nit kuy dugg ji na yóbbu yëf wute ji yëf moo tax ba koy siyaara ji na fab lu lay dem joxe ji ndax yàlla kon buy ñibbi ji yóbbaale ay mbóot ak yëf ku nopp ci yow ñi di ko nee te dootu seer ku mu ñee ku la banak kenn du ko ñee te fu mu dem gis ku mu ñee nanga nu def ku dee fi ñee faw ku dul gis ku mu ñee sunu kokit nañu ko ñee te bu mu dégg ku mu ñee mayu nuyoo bu leer a leer nañu giseeb cant bu leer nañu daje ngërëm bu leer nañu bu tax ñi di nu ñee yaatal nu yaatalu ngërëm te may nu nag jege ngërëm def nu ku dul jeeley ngërëm ak ci dërëm ku jëpp ñee yal na la yàlla xiira xiir faw ci nun tamay nu muur ci yow ak kuk juboo góor ñu di nun naw faw ak ñee yal na nu yàlla boole nag boole ngërëm góor benn te dugg nag ci sunu xol dëkkal bu wér ci sunu xol te ñu ci kaw ñi dee fi ñee may nu ngëneel ak sutura def nu ku dul tële dara ku kenn dul mënal dara ku ñuy gërëm faw ak a ñee yare nu mbég mu bari lool wooye ni yiw wu bari lool yóbboonu ñam yu bari lool def nu mbégum ña deefi ñee ñi jege yàlla nañu ni ñee ñi sori yàlla nañu ni ñee ñii di ni ñee ñee di ni ñee ñuy gañe ñii di gañe ñee yàlla na nu man lépp lu të yàlla na nu def lépp lu të yàlla na nu am lépp lu të yàlla na nu mbari yépp di ñee loo digle yàlla na nu ko man saytaane yàlla na nu ko man fopp te nag sunu bakkan fokk la may faf di ni ñee maa ngi liggéeyal man ki liggéeyal yàlla liggéeyal yonen bu mag ba te daane mbëri ya dàq ga war ya nangu gu bari ya ak gu baram ba boole ngoram ga ak njullitam ga ak njaxlafam ga ak xam-xamam ba ak lewetam ga ak wayefam ga ak sawaram ga ànd ak yaram ba moo andi xar baax moo yaay xar baax moo maye xar baax may na ko képp rekki na wërsëg ak barke yor nag mi ngi di may nag gaay mi lépp barke yi daw na wërsëg yi daw na mbooloo yi daw na jëm barabam ba xam-xam yi daw na ngërëm yi daw na yëw yépp daw na tabbi xolam ba njagam xamoo wax jilee ma lay wax ak kii ma lay wax moo di sëriñ ba moo di ku xam ka moo di ku xam ka moo di ku gëm ka trois di ban ba mbër yee ka koo xam mbër yee ka koo gëm dalee na xëy jam jox leeni kumba nangu tubay ya nangu fetal ya ak fasi gor ya jox kurélam ba waroomi daara ay seeni daara la doomi jaara di boole ñépp def leeni jaamam def leeni doomam ku ne di doomam jatay laram ba fooree ki dongoom kaan ki dongoom buura ki mbooloom la boole sox ba ñépp ni janjang kenn fëfatul jóg ku ne ni landang ngir jam-jamam ba yàllaa ko may lii moo ko defal lii tenoo gërëm lii gërëm dogal ba tey jébbuloo des ku ko deful des luy waralu des nit war na koo ba xam naa samay mbir ak sama waa kër jox ko ko man far yal na nu jàpp jox naa ko man mii saa lépp man mii yàllante man nii ma di lalam ba yàllante may fas mu def ma aw fas mbaam waru fas ma yor jatan ba yàllante buy dem ni ma jógoon dem ma topp koy dem yoral ko der ba yàllante man may mbubam ma mbaa may dalam ba mbaa may parisolam ba yàllante sax may tànkam ba mbaa may xolam ba mbaa may derule xam ba yàllante sax may boppam ba man tey noppam ba man tey farderu bët ba tey ba kanam ba tey xar kanam ba tey xasabam ba tey sikkimam ba tey ka ko sopp tey ka mu sopp tey muritam ba tey xaritam ba yàllante forme yi mante manit may moom it nu far xëy booloo ni rapp di jënn jëmm te yaari jëmm yu bari jàmm te ma ne nag ba xam naa ni maa bon xam naa ni moo gën saa su ma nee kun may lar bu jub ba tey lar bu man ba tey lar bu xam ba tey lar bu xam ba tey lar bu gën ba yàllaa ko baaxal yal na nu baaxal yal na nu seexal nun donga yépp yal na nu may nun jàmm ngërëm ren te sunu déwén gën ren jile fapp yal na nu may ak yokkute may nuk yokkete may nuk bàyyi ku fépp te may nu it ak farlu te may nuk yaru te may nuk jébbule lépp te may nu tawféex ak jëfi tawféex ak gaa yi tawféex yu xëy ni xëpp indi sunuy mbég ànd ak sunuy mbég dinu joxey mbég ak seeni bopp ba nu liggéeyal ban ba liggéeyal yàlla liggéeyal yeneen bu mag ba liggéey jot na sumiku jot na jébbale jot na te yegg jot na xam yàlla jot na xam yàlla jot na aw ngir ma jot na te yegg jot na jot gaaya jot na raw gaaya jot na gën gaaya jot na lu nekk jot na yàllaa ngi nii woo bambaa ngi nii woo nan bokk wax hu ndax wuy jot na dund yi jeena doole yi jeena yaram yi jeena soppiku jot na sikkim yi rëy na diine yi sew na àddina wéy na laxasu jot na angone wéy na banneexu wéy na ngir mag gi ñëw na kër kër yi jot na kurax bi jaawam janoo ki doomam na xam boroomam ngir xam ko jot na ko gis bi jaawam te ji ci doomam toppi boroomam war na ko jot na mooy boroomam mooy boroomam mooy moroomam tawattu boppam rafet na jot na soxnaa ngi daagu dooma ngi daagu sëta ngi daagu fagaru jot na sëriñ bi may nug jébbul may nug bàyyi ko tey nag ngir lépp jot na yow tere tang bi ne fi bitig bi may nunu tab bi tey sa bitig bi sarax nu ak njëg sarax nu ak jag ba nu juboo nag reenu te ubbi yaa fi yorug njëg yaa fi xamug jag koo saraxul njëg du jag du tab bi yaanuy lebal nun yaanuy fayal nun yow yaanu saf nun te doonu sappi yaa di garab gi noo ngi fi ron gi di fortu barke tabbi la tabbi noo ngi fi sag ron di waa fa kay bon ngir xam ni yaa gën ku dee si topp yaa tax sunuy xel dalte sunuy xol di set du dundal defar nga dundi seral nga xol yi dalal nga xel yi teeyal bakkan yi feng nga torompe feesal ma dell ak barke ngal la ngir jëmmi yàlla ak yonnenam ba feesal ma dell yeesal ma pull ma xëy ni mëll jiite kuréel ba xamal ma ay yëf amal ma ay yëf yu bokkul ak yëf yi ñépp guppe xamal ma yëf yi amal ma yëf yi ak yëf yu gën yi yow saa sëriñ bi xam nga yi lay yëf am nga yi lay yëf may ma yi lay yëf yow saa xarit bi dolli ma ak xam dolli ma ak am te dolli ma gëm yow dollikat bi na nga ma xëy fal yow ngeen ji ak fal tafam ma tabbal nag sa bitig bi ma di la jaayal faw wa ko jëndal ba nga ne sartal yaa yor bitig bi sëriñ bi ak barkeb di béer na sunu àddina ji leer sunu alaaxira ji leer kër gi lee ak gee bokk leer may nu ci barkeb altine tey ak ëllëg may yu tane bu kenn gis ku mu tane bis ba kuréel yépp di teer ak darajay talaata it xañal sunuy nooni mébét faw te jox leeni tawat ñu ñàkk bay liggéeye xaar barkeb àllarba nanu jot lu nu rawan caay mébét ba noppi jot képp nit it ku nu rawan baraw ko kaar ndaxal ci barkeb alxemes lu nu bëggul ba mu nemes tey ak ëllëg ba kenn du gis tànkam ba sax ak fu mu jaar fajal ci barkeb ajjuma saajo yépp te jama jox ma li may wut wuyuma may nu nga nee li këriyaar may ni ci barkeb gaaw nag jaglu gudul dañati ak ngërëm lu mer dul topp ak bunt jeew bu yaata leer jëf yi na tandu dund yi tandu nawet yi tandu nga féq fan yi jaambur na seddu mbokk na seddu xarit na seddu nga dàq lor yi ku sori wallul ku jige wallul ku loru wallul te dolli gëm yi ku suufe jàppal teg ci kawub jal sarax ko ak pal falan tawat yi mag ñi defar leen gone yi yar leen ñi daanu fab leen te boole xol yi mag ñi musal leen ndaw ñi musal leen sëriñ si far leen ñu far murit yi mbokk yi booleel jaambur ñi faaleel ñu dee ñi jaaleel te fekk mbugal yi te xol yi ànd jëmm yi ànd nu bokk ànd sax ci ndigal yi wërsëg bi dollil barke bi dollil mucc gi dollil defar barab yi xel yi dal leen xol yi seral leen gan ñi teral leen nangul nu jëf yi te may nu ay mbóot yu nuy teree tiit ci lépp lu ñuy tiit yoral nu fiti bu nu gisum tiit gu nu amum tiit bu nu jigéem tiit ñage nu mbég yi sangee nu ay mbég tabal nu ciy mbég wërale nuy mbég watul nu kër yi yow daala barkeel sa jëfa barkeel nanga nu barkeel notal nu mbër yi ñi falu ful leen la wax yi fal leen yu ban yi fekk leen mabbu xërëm yi ñu yéene aw ay bu ñu manu ay nañu teleew ay wune ci ay ñu yéene aw yiw nañu manu yiw bu ñu teleew yiw wune ci yiw yi dundal nu dund nu bokk dund te yàgg dund gañe ci lara yi safan wi nay wéy sa jëmm ji wéy nu topp lay wéy tofal la way foo jëm nu wër la ngir jëmmi yàlla ki tax nu gëm la ba jox la mbir yi yow yaa di jàmbaar ju ma ni jàmbaar jonganu ay mbaar neexal nga kër yi yaa gën ku nekk yaa man ku nekk yaa def lu nekk dambe nga ndam yi daane nga mbër yi daq nga mbër yi wasal nga mbër yi not xarekat yi seytaane daw na xare ba tas na sampexe jum na mujje nga réer yëf yi seytaane daw na xare ba tas na sampexe jum na mujje nga yëf yi mujje nga mii réew mujje nga mee réew te taxulaa réew doy nga kuréel yi damee la ku teeñ daana waral peeñ nga def ko niw teeñ yow raw nga xel yi dimbali nooti te wallu nooti seppili nooti dolli ndawal yi nun jaxasal nu te dawalal nu ràcc sifal nu yaa saytu ñam yi ràcc bu ñuy sif ngay joxe yaa saf li ngay joxe saf yaa yor yu saf yi fonkal yu dul jeex xaalis bu dul jeex xam-xam bu dul jeex ngay jox sagan yi kuy laa ci seere doy naa ci seere jànguma téere temel ni dex yi jànguma xam-xam ñàkkuma xam-xam sëriñ bi laa xam xamuma fen ni sëriñ bi laa xam sëriñ bi laa xam yàpp wi laa am am ma yax yi jooyu maa xam jooyu ma ak am am naa xam ak am am naa njariñ yi jox nañu mag jur ak luy jarug jur jooyu ma waa jur jooyu ma jur yi am naa lu gën baay am naa lu gën yaay man falu naa sa ay neexuma bañ ñi ban maa ma fenkal te moo ma tekkil te moo ma takkal ndomba yi ngërëm ñi fegal nga nu toor may nga nu yit nguur def nga nu yit buur fexal nu fan yi loo andi moo xam loo téye moo xam fasoowu noo jëm ci ku la mooy nun loo joxe nuy bëgg loo téye nuy bëgg ba loo la ñëw nag ni yàlla moo gën yow yaa di lépp yaa nekk fépp yaa saytu lépp yow la ñu fal kun njagam dañuy ñaan yow mii la ñuy ñaan may nu lu ñuy ñaan yaa yokk sunuy fan njagam dañuy ñaan yow mii la ñuy ñaan may nu lu ñuy ñaan yokk sunuy fan jaaraama jaajëf yaa gën ci ñiy jëf te gën ci ay jëf ngëm naa ci yow man doleeti nu xam doleeti nu am doleeti nuy ñam doleeti nu man sa ceeb jaa ngi sa jàmm jaa ngi sa buntu baa ngi ubbil ko saw gan yow rekk a man gan te yaaya yoo gan yaa mën a jox gan cantaki ndolleen bënn gudul day mukk nga yaa doy koo mën a gis tey waxuma ay fen nu noo ngi lay root feesalu nuy mbóot may nu ñu dul suut mukk ak a sàggan nit ñépp nay daw seeni yiwit daw wut si nuy daw di wut si saguron ñi di nu jébbal nu di la jébbal nuy dolli ko pal tey gën ku dul nun ñag naa samay ngarab tëj naa samay kër tëj sama waa kër ñépp saxal njëg ku bëgg a jekki nu bokk jekki ku bëgg a génn mani ko laggal ku bëgg a tàbbi mani ko tàbbil ku bëgg a génn mani ko génnal ngoy naa ci yàlla yal na nu yàlla mayeeti wall gu pënd àndal yal na nu tabbal ci lu dalum xel lu sedd ci xol guy yi lu yombul yal na yesam mbég te yesamu jag yesam ngërëm nag ñu rot nu faral jël yal na nu bàccal garab bi ndimmal yépp ñu rutul nu lépp ndimmal yal na fi teeral tiraanga teeral fi barke teeral fi jàmm ku pal yal na saxal ndam fi nun lu dul dem tey fegi lëndëm faw ak jaljal yal na nu buural calan ñu buural ñu jiba buural raadu ba yeggal yal na nu baylee bu wér te bayle gaaye nu baylee boole nu nangul yal na nu ñaanal te ñu mu ñaanal bokk nu ñaanal la mu tànnal yal na nu daanal te ñu mu daanal bokk nu daanal fonkali fonkal yal na farag nun ñu ñam farag nun ñëppam farag nun seral sunuy xol yal na nu baaxal yal na nu neexal yal na nu xeexal yal na nu dàqal yal na nu baawal yal na nu gaawal moo mën a gaawal buy def du yàggal yal na mayeeb taw yal na mayeeb yiw yal na taw taw ñëw ak lu dal xel yal na nu yor nun dolli nu kàttan saxal nu ci man saxal fi nun njël man fàtte loo ma te dëddu loo ma te sànni loo ma lu dul sa jëmm te bëgg loo ma te sopp loo ma te sàkk loo ma faw sa jëmm lu dul sa jëmm loola du jëmm lay ngeen ji jëmm moo di sa jëmm boo dee maye ser mbaa ngay mayeeg jur mbaa ngay maye tur may ma sa jëmm ndaw si lu muy may farwa lu dul sëy booba da koy jay may ma sa jëmm fabal sa jëmm may sama jëmm fab sama jëmm may ko sa jëmm yal nañu fa mbay faw ak ndamal mbay ak njariñal mbay jébbal sëriñ mbay yal na dugub daw barkeb dugub daw mbootum dugub daw socci sëriñ mbay yal na ngërëm daw xam-xam bu wér daw diine ju wér daw socci sëriñ mbay yal na ragal fëx da dugg wér fëx wërsëg wu leew fëx socci sëriñ mbay yal na njariñ ñëw dund ak njariñ ñëw gudd fanin ñëw dëkk ak sëriñ mbay yal na soxum ndam buy dolli nit ndam tey dolli nit gëm jit ci sëriñ mbay yal na juboo ñëw sutura it ñëw mujj gu rafet ñëw sax fi sëriñ mbay yal na tawat daw lu koy waral daw lépp lu bon daw teggi sëriñ mbay yal na ña gëm ñëw mboolem ña jub ñëw ña yàlla saf ñëw farak sëriñ mbay yal na xoram ñëw ña am xoram ñëw ña koy wutit ñëw ànd ak sëriñ mbay yal na yu murit ñëw seeni sëriñ ñëw ñu bokk xëy ñëw mooy ci sëriñ mbay yal nañu feesal ñépp ak ndimmal del te feesal ruqi sëriñ mbay yaa jara féeteel yaa mata féeteel yaa neexa féeteel yow lanu féeteel xëynoo ki mbégteel wërnoo ki mbégteel renoo ki mbégteel duynoo ki mbégteel yal na nu xëy naan ci géej ji rahmaan ba man di raamaan tey dunda kay beel yal na nu raamaan ci mbóoti rahmaan ba mag ña raamaan ñépp te barkeel yal na nu dëkk ci jub te dëkk ci man te dëkk ci mbër mi ndam ñeel yow yàlla yaari saajjanaari yaa kere yu may faf nu ko jagleel yaa ëpp ak pay yaa ëpp ak may yaa ëpp ak may rusloo nga dammeel xëppal sa yiw wi ci sunu ay wi te jàpp ay wi rey def ci bàmmeel xëppal sa may yi ci sunu moy yi far sunu moy yi yaa mucc musleel xëppal sa pal gi te xëpp jur gi ci sunu kër gi yaa tedd terleel yaa yor ngërëm yi yaa yor dërëm yi yaa saytu ndam yi ak ñam yi bëgg leel yaa mucc musleel yaa tedd terleel yaa tabi bëgg leel yow lanu féeteel buurub aras moo di buurub dëgg-dëgg budul dee bis du folliku bis alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ak réeratee ñépp naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ibliisatee ñépp naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam bon dongatee ñépp naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam nun ñépp war nanu naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam mboolem ñi baaxe ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam mboolem jullit ñaa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ñi sopp yàllaa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ñi yàlla soppa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam mboolem sëriñ saa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam mboolem murit yaa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam yàllaa ngi sant ñi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam yàllaa ngi dolli ñi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ñayoo aras ña nga naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam malaaka yépp a ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam seytaane rekk waxul alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam buurub aras moo saxal alhamdulillahi nun ñépp yal nanu sax ci sant sax ci lu ñuy santaane lépp saxal alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina na sax ci seeni làmmeñ bu wér alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina na sax ci xol yi sax gu rafet alhamdulillahi santoy ndigal moonu war moo jaadu faw ci nun moo taaru faw ci nun alhamdulillahi yàllaa rafet ëpp naa wax lëf lu dul jërëjëf du wax lu bon du ko def alhamdulillahi moo gën ku nekk waxam gën jëpp wax jëfamit gën jëpp jëf ay ibul alhamdulillahi tabaarakallaahu moo mat moo desul desewul te moo matal gaa yi mat alhamdulillahi alhamdulillahi rek kay wax ju am janjariñ nu ñépp yàlla nanu naa alhamdulillahi ba tàbbi firdawsi bii rek biti tàbbi gu wér xol yépp sedd nu naa alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am lu jomb lu gën ay réewi réew a ki pal alhamdulillahi alhamdulillahi yàllaa ëpp lépp lu rëy xam ko gënit lépp lëf alhamdulillahi alhamdulillahi nun nu ëpp buuri njariñ gën koo dalum xel asal alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo ngoy ci kenn ku gën buur ak dagam ya ko wër alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo jàpp dëgg ci lëf lu wér lu rëy lu rafet alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am lu sedd xolub koo gis te jomp bëtam alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am ku sikk néwul te xam lu sikk néwul alhamdulillahi alhamdulillahi noo am nun lu kenn amul njëgam te kenn du ko am alhamdulillahi alhamdulillahi noo am nun lu jomb ci lu jomb ci nun lu gën kajoor ak bawol alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am lu jomb ci nun lu gën kajoor ak bawol alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am lu buur ak i dag amul te gën la ñu am alhamdulillahi alhamdulillahi ak baadoola dem na nu dem nu bokk fii woo soree alhamdulillahi alhamdulillahi noo am may gu farlu gu rëy ak fit wu rëy mayewul alhamdulillahi alhamdulillahi noo am may gu itte ju rëy ak xel mu rëy mayewul alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am sëriñ bu nu fab jëbbal boroomub aras alhamdulillahi alhamdulillahi noo baa ab sëriñ te juboo juboo gu sax gu rafet alhamdulillahi alhamdulillahi noo gën ab sëriñ ku nu moy gën ñëpp ab yenn nit alhamdulillahi alhamdulillahi noo am nun sëriñ bi te am yeneen ba am yàlla nag alhamdulillahi alhamdulillahi yàllaa taawu lépp njariñ te moonu taawu ca kaw alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa tax nu xam lu nu xam moo tax nu am lu nu am alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa tee nu bokk torax moo tee nu dee sax ba tey alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa tax nu teggi lu bon raw jépp lor jotu yiw alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa tedd moonu teral nun ñépp moonu bégal alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa may ku nekk ndawal ku nee ngi yàpp ak a bég alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa am njariñ may ndam yàlla nañ mbégam sax fi nun alhamdulillahi alhamdulillahi yàlla sax te yàlla na saxal gëmam gu wér ga ci nun alhamdulillahi alhamdulillahi yàlla sax te yàlla na saxal gëmam gu wér ga ci nun alhamdulillahi abdul ahad yàlla na saw fan gudd mbàkke nga wér te sax ci jàmm ku yiw ak jaamu yàlla gu wér abdul ahad yàlla na saw fan gudd mbàkke nga wér te sax ci jàmm ku yiw ak jaamu yàlla gu wér farlu tew yi yàlla na ngay for dog bu sedd sa xol te mucc cew ayakum ndax sax ci dara la war farlu tew yi yàlla na ngay for dog bu sedd sa xol te mucc cew ayakum ndox sax ci def la la war toppal sa mag Moustapha bul génn yow ndigalam ngir mag mu mat mag la mat ñépp sëriñ te du war jëfal te bul faala nit bul geesu nit ci sa jëf na yàlla tax ngay jëfal yonen ba ak kala jur kalay mënal dara moo jar def lëf ak bàyyi lëf te kooka nag moo di rabbul arsi yàlla na nu yar yar bii nga am yor ko biir ak biti moo di sa kee moo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak ki jur sa bàyyi gën ñépp teb yar dongu dongu la yor yoral yaram ba te koo gis dee ko santaka yar sa bàyyi gën ñépp ab yar ngir dalay jox a jox ab yar ba ngay ama am ab yar te doomu si yar du yëkkati bi yar di teg nit waaye moo gëm nit ñay teg nit bi yar a kay janee ka yeew aka lor nijaayi ndam yi nga am loo gis ñu am ko ci ndam xamal ni moo ko waral ak cant war na gu tar ak cant war na ci ñoom ak yow gu réy gu rafet gu day ni bajj gu dul yam fenn mukkati far loo gis ci am satu moom yi ci yar ak jëfu yiw xamal ni moo ko ci def ji wax ku nekk la biir ab doo ki am satu ak mbakkee ki ballaasan yow say najaaye ngi nii di sàll kenn du ca par fëxal te raw am nga ab yóbbal fëx ak raw a des ngir baaxi bokkadi ab yóbbal nay taji sab saral tewee dëgg bul yam ci indi jaaya ki baaye ndey di sant ka doy loo seeni cër lu ko jar foo seeru kuy foo ka doy loo ab cëram na nga na nga wut loo dolli yow ci sa cër bii ndax nga am cëri cër foo seeru kuy foo ka doy loo ab cëram na nga wut loo dolli yow ci sa cër bii ndax nga am cëri cër jallil ca kaw bul fexee jëm suufa kay waxadal ci jolli ngay waare ab xiibon ci ngay note mbër regaayub jàmbur ku koy doyloo bëri gu la xam buurub aras ka farak mbër yépp yàlla na nu far yow yàlla na ngay wéy a kay jëm kaw di dolli ku ndam ba jiitu waa kaw te nangoo suufe koy amutur abdul aat yow sa yéenay bopp yàlla na la dal loo bëgg yàlla na nga am loolee te ngëb ko bu wér maryam ma yàlla moo la moom teg naa la faw cib loxoom ba naa la faw cib loxoom loxoom a gën loxob ku ne lu man di am jàppal ci moom lu man di xew jàppal ci moom kon mu musal la faw moom tey ak ëllëg ci ay wu ne yaa ngi fi yàlla bul ragal ku ne fi yàlla du ragal dara lu dul jàdd ndigal seenu la am mucc gu ne jàppal ci lii ñu la digal wayal ci lii ñu la digal xamal ni lii ñu la digal moo gën ci yow lépp lu ne saytaane kët dalay xëbal te naa la ay dawal dawal ngir bëgge laa génn ndigal bugal la ci àll bu ne bul diglu mukkati waxam bul geesu mukkati jëfam bul faale mukkati mbiram yàqal na kët gaa yi gëne bu mu la nax bu mu la fef bu mu la tàbbalit ci lëf bu mu la génn it ci lëf ca dala buy naxi gone am nga ndigal lu wóor a wóor ku am ndigal lu wóor a wóor naaw ndigal bu wóor a wóor ba yegg am tono ju ne lu am njariñ dafa jafe te bala ngaa am lu jafe def lu ñu naa ak a jafe te naa la moo nang ko ma ne koo xam ni attunu la jaay bàyyi ndey ak maam ak ni jaay jënde ngërëm du am nga ñaay mu ñal te wut ngërëm lu ne koo xam ne attanu la jaay baay ak ndey ak maam ak nijaay jënde ngërëm doo am nga ñaay muñal te wut ngërëm lu ne muñal te sant yàlla fab ndax mu fegal la jépp lor te may la ndam jubal sa mbir gërëm la may la may yu ne farlul ci waxtu yi juróom tey jàpp boo mënul nga tiim te jublu na ci sa boroom faw te jéem a gën ku ne kuy julli waxtu yi juróom ci jàkke yàlla na am juróom gudd fan ak wér ak juróom yu bari ak barke ki koom koo xam ni kii waxtu wu jot mu ñëw nu julli yal na jot teeg ëllëg lu mu mébét tay wu jóg teggi ko moom waxtu woni julli ku teew yal na noo am cant ku teew gu réeree te bokk teew déwén te boole joppati waxtu woni julli ku teew yal na noo am cant ku teew gu réy te bokk ne teew déwén te boole joppati koy teewee nun yal na nu teew ku teewlit yal na nu teew lu man de xew yàlla nanu teew te taaw ndam lépp ni xiim ku man a ñëw nag te ñëwul yàlla na ko yàlla toroxal te jiite far ko toroxal ëllëg mu dëkk ci kasoom murit yi ab dent a ngi nii murit yi ak maye ngi nii murit yi ak cant a ngi nii ku bañ a sant luy soloom ku sant yàlla te gërëm yàlla na nu bokk am gërëm kuy mere kay bañ a gërëm yàlla na ñu sex yi fa mulum ku bég ci lii nu bég ci nun ku ci bégul nu bég ci nun lu man di xam nu bég ci nun ku ci bégul yàlla na foom ku bañ boroomam mata bañ ku bañ yoonit mata bañ ngir maa ngi nii ku ko ci bañ ma bañ ko yàlla na fay tegiim ku man di dem jàkkaaka dem ci aw sasam ñu jox ko ndam ku ko deful ñu xañ ko ndam ku bëgg ndam jóg ci sagoom ñun ñépp nag yàlla na nu jub bokk juboo di def lu jub te aw ca ngir ma gën a jub ngir yépp tey dolli ko doom yàlla na sëriñ Tuubaa ni ciix mucc ak njariñ ni nu ko foox faw te xëy def leeni seex yu ñu tofal mbooloo ki koom gàcce gu jóg yàlla na nu mooy lu bon lu jóg yàlla na nu mooy ku bon ku jóg yàlla na nu mooy faw te mooy sunu barab yàlla bu kenn jëm fi nun ku dul ku nuy bégal si nun yàlla bu lenn jëm fi nun lu dul nga nee la mbir mu jub sëriñ bi yàlla na nu yàlla na nu may jëmmam te yàlla na nu may xolam te yàlla na nu may jàmmam ja faw ak gépp tab sëriñ bi yàlla na nu may jëmmam te yàlla na nu may xolam te yàlla na nu may jàmmam jafaaw ak gépp tab lu dul mbég yàlla na nu mooy lu dul yiw yàlla na nu mooy lu dul ngërëm yàlla na nu mooy te yàlla na nuy rawee ka xëpp yàlla na nu taqoo ki ngërëm faw te taqoo ki dërëm yu nuy wutee ti ay ngërëm ak a fegeeg mooy ak xarab yàlla na nu xam wërsëg wu rëy yàlla na nu am barke bu rëy yàlla na nu xam doylu gu rëy ba du nu leble du nu leb gaa yi le man jébbulu naa bu wértekat bàyyiku naa bu wértekat soppiku naa naratumaa yor seeni mbir naratumaa yor sama mbir naratumaa yor seeni mbir naratumaa yor sama kër naratumaa yor seeni kër naratumaa yor sama jur naratumaa yor seeni jur façon na maa fab seeni jur ak sama jur joxe bu wér tey boole naa man seeni mbir ak sama mbir ak seeni kër ak sama kër boole gu wér jébbal sëriñ bu mag bi far jébbulu naa jébbale naa noppalu naa noppale naa te noppi naa noppilu naa de suma gaaka fayu bor lébu ma man léb léwu ma te moo nakat léb luwu ma waxuma it wax luwu ma tudd samay ayib du ngor sëriñ bi man maa ngi ni le sama njaboot a ngi ni le te sunu mbir yaa ngi ni le nanga nu boole yor defar buntu tawat ubal nu ko faw ba dootul ubbiku buntum ngërëm ubbil nu ko faw ba dootul ubbu far ubal nu wunti perte yi ubbil nu wunti tono yi ubbil nu wunti cant yi ngir caabi yépp yaa ko yor yiwu nu raw nanu ko jot waaju nu raw nanu ko jot ba far ko jiitu bu rafet te bu nu lëf mbaa kenn lor te bu nu aw yiw rawati te bu nu kenn jotati mukk ka dox di séenati sarax nu barkeb mépp ngir